xadis yi wax si ngëneel koor bari na bokk na si xadis yooyu xadis bi Abu Hurayra génne nee na ba weeru koor teroo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax ni weeru barkeel dikkal na leen yàlla farataal na seen xeeru ngeen woor mu ne weer la woo xam yàlla day ubbi buntu aljana yi tëj buntu safara yi jëng seytaane yi ba duñ perte ba junni seen benn jëf mu ne nag guddee gis goo xam ni moo gën junni weer yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na képp ku xañ sa bopp ay yiw si guddi googu kooku na xam ne xañ na boppam yiw yépp mu ni nag guddi la goo xam ni moo gën junni weer ëpp na 83 ans